c'est vrai bëggoon na toog fi joomaay toog tey mais yàlla dogalu ko mais coalition ba mu nekkoon démb ak bërki démb ne fa ba am li mu am sur le plan politique mais nañ fa dellu. prépa préparer ensemble les législatives est-ce que xajati na ci coalition boobu. non mais mais justement mais mais mais lan mooy problème bi. coalition boobu nekkoon am ba tey. lan mooy lan mooy problème bi amatul xanaa peut-être coalition. Diomaye waxuma waxuma coalition Diomaye président laa wax. coalition ah, foofu mooy avenir am. te gis nga nguur nag yàllaa koy jox nit xalifa bëggoon na falu yàlla dogalu ko mais dama ne option bii ñii koy jiiñ ba tax ñu bàyyi ñoom aussi dama jàppale seen accusation bi dafa yomb trop parce que kii dañoo njort ne dafa bëgg a dem fii rek mais dangay xaar ba mu acté ko sax da ngay bàyyi ba mu ne la dem na nga ne ko eh man kat fii nga jëm ànd ceeg yow bàyyi nañ. mais loo njort rek loo xalaat rek ngeen ne bàyyi ngeen. waaw dañoo posé benn acte bu yore ne dégg naa Abba Mbaye mu ni opposition bi ñu bari ñu ngi woo xalifa Sall parce que xam nañ ne moom rek moo mën def une dynamique unitaire kon gis nga mu mel ni kenn ku ci nekk rek yaa ngi yaakaar na yow sa leader moo war a jiite mbir yi foofu la problème bi nekkee gis nga les les les ambitions là parfois dañ koy dañ koy teg pour l'intérêt de tout le monde lentere de tout le monde surtout ñu nekk au au pouvoir mooy. préparer ces législatives la am une majorité à l'Assemblée nationale te loolu xalifa Sall bis bu commettre l'erreur dem dugg foo xam ne waru fa woon a dugg mooy sa retraite politique définitive moom dootul politique ci réew mi xanaa mu bàyyee parti bi ñoom Abba Mbaye ak ñoom Barthélémy Dias ak ñooñu taxaw mouvement boobu ñu continuer ko mais moom ak ak expérience bu mu am yépp man gëw ma ne Khalifa cuune na xeetu cuune googu ba naan non day dem fekki. kuréel goo xamante ne nee nañ la amatut. waaw loo fay def. waaw soo ñu daje dem ñu mu doon kon. ah ñu daje dem ñana non ñooñu wax APR la. Ah, mais amoon na maître kan na nekk. non APR la loolu. d'accord APR la. ñoom ñoo daje def seen nguur bu fi nekk coalition bu fi nekk bu nguur gën a mbàpp. parti ba parti ba fay des. Mm-hmm. leen doon gérer par fin du mois. waaw kay da ngeen doon réunion ngeen dem élection. privilège yi poste yi yooyu yëpp nekk yooyu yëpp nekkatu fi. Mm-hmm. mais et puis parti sax c'est normal ñu dem. loolu la ñu koy defatee. waaw léegi nag man daal damaa gën ne xalifa bu fekkee changement bi mu doon incarné ba tax mu bëggoon a jiite réew mi mu ngi ci logique boobu ba tey warul sori ñii yor nguur gi tey warul leen a sori dafa ñoom liggéey bu fekkee changement bi mu doon dëgg la c'est le moment ñu sax ñu mettre ko en œuvre boo demee di dugg ci foo xamante ne leer ne yow tey ci contexte politique bii ñu nekk nii naa la ko léegi cinquante quatre pour cent des sénégalais dafa am ñu jox bopp. mais yow bu dee dangaa ngaa bëgg a bëgg bëgg réew mi dox kay mais demal fekk leen nga ànd ak ñoom liggéey réew mi mais dugg foo xamante ne la la neew amoo benn chance pour gagner loolu pour mën erreur politique la te gëw ma ne Khalifa Sall ak expérience politique bi mu am gëw ma ne dina commettre erreur boobu léegi nag ñu bari aussi ñu ngi koy reprocher son silence maanaam noppi gi mu noppi xam nga aussi leader politique yi ñu ci bari aussi ñoom dañu am seen seen seen rythme bopp. te rythme bi souvent du du day wute ak rythme ñu nekk sa ginnaaw ñu nekk sa ginnaaw ñoom dañuy bëgg ngay doxal normal ñu lay dégg tout le temps ci rajo yi ci télé yi ngay ngay doxal bu dee yow nag da gis ne yow da war a noppi ba ca kanam loolu aussi mën na indi jiixi jaaxa ak dut mën na indi dut mais ku la ne gars yi nekkuñ di waxtaan ci suuf moom ñu da lay nax gars yi ñu waxtaan cest à li ñuy waxtaan lan la ak kañ lañ koy génne loolu bis bu assemblée bi buñ ko tasee de façon officielle ci la lu baree baree bari di feeñee. mais xalifa daal fii mu ci toll nii moom. man de bu ma doon dama koy digal. non lépp lu laal benn bokk yaakaar tur bi kese sax da koy sori ñi mu war a gën a déggool gën a jubóol mooy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ak ñi fi nekk bis bu deful loolu day def mooy yóbbu boppam retraite définitive ci vie politique bu Sénégal day daal di dem toog Idriss Seck mi ngi nii problème boobu la am fi mu toll nii Idi naka lay def ba rebondir devant les Sénégalais loolu mooy son problème. te mënatut a ne parce que fam ne moo fa yóbbu boppam moo dem Mermoz dafa jiite ay julli dafa tari ay saar waaw ah, moom moom moo ko def moo demoon tënk boppam biir bennoo dëgg loolu dëgg mais loolu tax sénégalais yëpp woon ko ginnaaw kooku tey naka lay def ba convaincre sénégalais yi mais day yaakaar ne day yomb du yomb ça va être extrêmement compliqué pour ñoom segem ñoom ña fa nekkoon ñoo am problème boobu yow nga nekkoon de l'autre côté ba pare yow nga bëgg a dem yóbbu sa bopp ci problème boobu mais loolu du xalaat. loolu du xalaat. Mhm. amut. kon damaa jàpp ne rek. amut ñoom taxawu daal nan gën a taxawu seen bopp. ñoom ah, taxaw soxla nañ taxaw non nan gën a seen bopp. nit ñi taxawoo seen bopp nag xam nga lan la am dañ def ndëpp tëju cib néeg waxante ay dëgg bu ñuy ànd ñu ànd bu ñuy tas ñu tas. loolooy dëgg parce que politique aussi man li ma ci gën a jaaxal sax boo boo taxaw taxaw boo ko tuddee jamono ji xalifa boo tuddee xalifa Barth nga ciy teg mais jamono ji le silence de Barth moom a jaaxal ci situation bi xew même ci seen bi parti bi sax li ci nekk di xew boobaak léegi déggoo ko mu àddu ci loolu aussi lan moo koy expliquer pour yow Socé ah, waaw silence bi de mooy li ma la léegi rek xam nga ay xeetuk ab bambay yi ñoom li ñu bëgg mooy affaire bi di dox normal waaw moom mi nag bu fekkee dafa am rythme boppam Barthélémy Dias nga xam ne tey booy xool ci entourage u Xalifa Sall peut-être boo ci génnee euh, yeneen gars yi moom xëy na moo ci gën a <laughs> euh, taxaw effectivement moom aussi il est dans un silence euh, assourdissant mm-hmm. <laughs> waaw il est dans un silence assourdissant boo xamante ne fi mu toll nii jaare dañoo nekk ci ruelle politique lañ toll calcul politique bu méttee méttee métti lañ toll parce que gars yi xam nañ ne assemblée day jeex mm-hmm. léegi yan chemin politique la ñuy teg ak kan lañ ci àndal pour am am am am am gain de cause ci li ñu jëm loolu mooy loolu mooy affaire bi loolu affaire bi te état major yëpp ci même dispositif ci même calcul bi la ñu nekk bu dee parti au pouvoir man li ma leen di wax mooy nañ consolider la coalition Diomaye président bu fekkente ne dañuy dem ci législative yi ak beneen coalition mooy une coalition élargie une grande coalition pour am la majorité à l'Assemblée nationale nañ ko def mais opposition bii ma gis tamit bu ñu bu ñu amul bu adopté wul la même stratégie def un bloc ànd comme la Déthié Fall réussiroon boole ñaari kuréel ñu dem ci xeexandoo amandoo nombre de députés ñu assemblée bu ñu ko deful aussi du ñu am dara parce que fii koo fi jël prix individuellement bu demee it buy jàll daanaka moom doo ngay jàll waaw ci ay plus for reste la ñuy la ñuy jàll ak ay benn député ak ñaari te loolu nag amul njariñ mhm. waaw damaa gëm ne daal ah, kenn ku ci nekk yaa ngi ci li nga ne mais balaa chemin bi di gën a leer daal ñu dem bañ ne tas nañ assemblée nag ba xam datu élection législative ya kañ la. su boobaa nag ci la courant yi ak alliance yeeg coalition yeeg yépp nag di gën di gën a feeñ. d'accord Ami mu mel ni euh, vingt 24 euh, cadres yu nga xamante ni ñu ngi woon ci biir euh, taxawu jamono juñ toll nag génn nañ waaye la ñu teg ci kaw table mooy nii ñoom fas yéene ñu lëkkaloo ak waa Benno daanaka daal boo dégloo kàddu gi mooy dañuy ah, tuumaal voilà xalifa ne dafay lëkkaloo bennoo xalifa mm-hmm. Khalifa nag ay ñoom démentir nañ ah, gis nañu ab ab Bambey amut mbir mi moom comme gars yi tegg nañ tuuma gi jaaratul sax ñu ci ñu ci ciy wax lu bëri et pour man sax nit euh, hmm. jaara boo demee nag ba bëgg ànd ak moom ba àndatoo bëggatoo ànd ak moom war nga am courage nag ak mat gu toll ne ko sëñ bi maa bëggoon bëggatuma il faut que également tamit ñuy am euh, maturité waaye itam ñuy am courage boobule parce que ku ne xam ne jamono ji euh, taxawu tey ji boo limee Khalifa Sall lim Barthélémy Dias amaan na doo am keneen koo lim wala di nga wër keneen koo lim que yaakaar naa ne poids bi nga xamante ne amoon nañ ko amatuñ ko gis nga élection euh, présidentielle yi fii jóge yaakaar naa ñoom kii lañ amoon kii wéef bi wéef bi lañ amoon ñoom donc euh, da leer ne waaw pourcentage bi booy booy fere fere xam nga loolu bëriwul mm-hmm. donc pour man war nañu defaraat seen taxawaay comme ni ko Socé waxoo léegi li Socé waxoo léegi xam nga dañu toll ci dynamique boo xam te ne politique politicienne dafa jeex